ñoo ngi jiital ci nuyoo bi kilifa ak jataay bi di sëriñ Cheikh Mbacke Ali di nuyu sëriñ Cheikh Abdou di nuyu sëriñ Jili sëriñ Mamoun ñoo ngi nuyu mboolem bokki taalibe yëpp kenn ku nekk ab nuyoo akub ziar bu méngoo ak wàccuwaay bi la suñ borom jox noo ngi ñaanal ñëpp yërmande suñ borom aku njëggalam barkeb sëriñ Touba ñoo ngi ñaan ci daraje sëñ Tuubaa li leen mag ñi bàyyee ngeen di ko sàmm yal na ngeen ko yóbbu fu gën kawe fa mag ñi doon mébét barakat Cheikhul Khadim yàlla bu ci dara suut di jëkkante ak waxtu wi di yëkkati sunu kàddu muy kàddug fàttalante rekk kàddug laayante biir ci jataay yu am solo bii muy jataayub sant yàlla sant sëriñ bi jataayub fàttali ko suñ boroom ci ay jëfam ak sañ-sañam jataayub jéggulu sunu borom ci sunu rëcc-rëcc jataayub tudd yàlla sunu boroom dara warul ko waaye warlool na ci boppam ni su ngeen ma dee tudd danaa leen fàttaliku faskuruni askurukum warlool na ci boppam ni su ngeen ma ñaanee danaa leen may nii ad'uni astajibu lakum warlool na ci boppam ni la in sàkkartum la asidannakum bu ngeen sante rek ma dolli warlu na ci boppam itam wa ma kaana lahu li yu'asibahum wa hum yastaghfiruna li fekk yéen a ngi jéggulu duma leen mbugal te yooyu yëpp jataay bi ëmb na ko muy jataay bu am solo jataay dundal loo xamante ni ni mag ñi ñoo ko suuxatoon jëmbat ko suuxat ko ba mu màgg muy jataay bu am solo te sëñ Moussa daf daan wax ni fu lu baax ne ku baax a ko fa yóbbu waaye ba fa saxee nag ab defarkat a fa nekk fa tabaarakallah la mag ña tàmbaliwoon mu ngi màgg di gën a rafet ngir taxawaay yu mel ni yi bokk yi taxaw muy diggante bu am solo boo xamante ni ni mag ñi la suñ boroom jaarale woon ci seenug dund ginnaaw bu mu leen sante la war ci ak bokk ci dundal ko ak sàmm ko ñu dellu dajawaat ci ëttub seexul xaddim àndandoo ñoom ñëpp di sàmm ormay sëñ Tuubaa ji kenn ku nekk di ko sàmm ci sa moroom loola jamono soxlawaat ko lool nu war di ko fàttalante bu baax a baax ndax ak bokk suñ borom ko bind kenn tànnalul sa bopp ay bokk yàlla moo seet ñi ko neex mu boole leen digle rafetal dige ca àjjana tere ku ko ñaawal dële ci ay duma mag ñi nag xamoon loola ba tax la leen suñ boroom doon sant lépp def nañ ko na leen ko suñ borom sante woon jeexal seenug dund ca fa leen suñ boroom joxoñoon moo tax bi ñu bi ñu fàddoo soo leen woo yàlla wuyu boo leen laajee yàlla jox la ndax moom lañ fi nekkaloon loola rekk moo leen may way wii ñu am mu mel ni jataay bi jataayub sëñ Modou Rokhaya la ak sëriñ Ahmad Tindodi dara génnu ci sëñ Tuubaa dara génnu ci lislaam ndax mag ñi dañuy wax ni mbokk sa boppa waaye koo xam sa mbokk waaye mbokk moom sa bopp koo xam sa mbokk ñu seq lu bari waxuma sax maaram ji waxuma itam bàllaay sa ji waxuma it gane gi sëñ Moussa gane àdduna fii ci pàkk bu tedd bii waaye daam yeneen relation yu leen boole yu dëgër te yu am solo la yu mat di fàttali bu baax a baax ndax damay wax ni senegaal bu xamoon li nu bokk dana dund dund gu gën a rafet gi nuy dund waaye fa tabaarakallah di sant yàlla itam bu baax a baax ci xiir gënu suñ boroom xiir ci lu baax ak xañtu ko waxtu wu ci nekk nuy rafet njort bu baax a baax itam ci am ngërëmal suñ borom sëñ daa waxoon sëñ Malick Basim lu am solo ak sëñ Mor Xari lu wax ni booba daf leen di wut loo mattum sump ñu dem wuti ko ànd ak ñenn ci seen mbooloo ku ne taxan aw say biñ ñëwee fekk sëriñ bi fato ñu wéer say tëdd ca wet ga kenn ku nekk weer saw say tëdd ca wet ga loolu njaareem la loolu ci buqaatul mubaaraka la mais biñ déggee sëñ bi yëngu ñoom ñëpp kenn ku ne jógaat jubbanti saw say mu taxaw ci sa wet bi sëñ bi ñëwee wër leen ba dem ca wetuk soowu ga taxaw ca mbooloo mu jublu jublu penku ne leen war ngeen a sant yàlla bu baax ñu sant mu wax leen ko ñetti yoon ni leen war ngeen a sant yàlla mi leen xiir ci bëgg dara ba pare yabal leen fu dara am ngeen nangu caa def seen dara war ngeen xam ne dangeen am dara loolu mooy yëngutu yi ñuy yëngu rek yépp fi ñu koy def fu ko jar la loolu moo tax nu war ci bàyyante xel bu baax a baax tey jii jàppalante ñu gis ni yàlla moo dogal suñ boroom ci coobareem soxna Buri Kànni mi nga xamante ni mooy waajur sëñ moodu Mamoun keroog bi sëñ Modou Mamoun feeñee jamono la soxna Buri wàcc ab liggéey loolu moo soob suñ borom waaye sëñ Modou Mamoun boobu lañ ko jox soxna Aminta Lo fekk mu yor Cheikh Mouhamadou Lamine mu boole leen loola boole la booleb yàlla la booleb sëriñ bi la diir bu néew la fa def soxna Aminta suñ borom ñëwaat ak coobareem mu dem barsàq ñu nekk ci loxoy soxna Awa Boussa ab diir soxna Faati Balla Suxura mi nga xamante ni mooy waajuru soxna Buri sëñ bi jox ko njaboot gi mu yóbbu leen foofa lañ mottalee seenu nekk loolu ab taxawaay la bu am solo ñu gis ni itam ni ci biir taxawaay yooyu yi nga xamante ne ni mag ñi doon nañ ko bàyyee xel taxawaay yu am solo la te loolu yi mu wax léegi sëñ Mokhtar Diop mi ma ko nettali nee na ma sëñ Modou Mamoun moo ma ko waxal boppam ni ma nii lu demee sëñ maxtar Diop Kawlax la dëkk nee na ma booba dama amum tudd ni saroon doom ji ma tuddee ko sëñ Baara far ca guddi ga sëñ Modou Mamoun fanaan si fa ma wax ko ko mun ma kon doom ji man nga koy tudde ma di ko déedéet dama ko ni saroon a tudde sëñ Baara mun ma maag sëñ Baara benn lañ nee keroog la ma nettali lii xew kii di njabootam di sëñ Modou Rokhaya mu duppee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha jox ko loolu itam danañ ci jànge rekk mag ñi dundin wu rafet wi nga xamante ne ni moom lañ doon dund te nampe ci seen waajur yooyee muy keppaar googu ñu nekkoon di keppaaru Sëñ Tuubaa foofu tam suñ borom indi fi coobareem ci ak bokk muy yàlla mberu ak roqaya ak faatimatu ak aminata ak joor ñooñ ñoo bokk jand ndey yàlla moo jur soxna xari mu jur soxna fatima du maam mu jur sëñ basiiru roqaya moo jur wacciit mu jur faatma mu jur sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma aminata moo jur Dame Aminata mu jur Roqaya Touré mu jot suñ Modou ak soxna Aminata Mbacke waajur suñ Cheikh Madina faatima moo jur Alsaan mu jur Xari Gumba mu jur soxna Binta Jaxate muy waajuru suñ Moustapha ak suñ Muntaxa mi nekk ci bopp yoon wi kon mag ñi xamoon nañ bokk gi ni ko suñ boroom ràbbe te doon nañ ko sàmm bu baax nekk googi mu nekkoon ci keppaaru Cheikh Mouhamadul Moustapha nekk fi ak njaboot gi ñoo bokkoon benn wàccuwaay loolu moo tax njaboot ga ñëpp la jaxasool dañ cee tudd sëñ ma tey waaye njaboot ga ñëpp la jaxasool ñam fa bokkaloon ñëpp it ñëpp la jaxasooloon ndax ka leen doon yar loola la ci jublu woon muy ñu xam li ñu bokk kenn ku nekk xam cër bi sa moroom am ci yow nga mën koo jox te loola bokk gañ bokk yaru moo leen ko may kon loolu itam danañ ci gis ni rëq-rëq bi tàmbalee dal jamono muy manque de respect bi ak ñàkk xamante gi ñàkk bokk milieu yu ñu yaroo moo ko waral ñàkk bokk jikko loolu rek moo ko waral ñoom nag amoon nañ sensu bokk benn milieu bu ñu doon yar bokk itam ku leen doon yar ka leen doon yar itam dafa taq woon ak ñoom nit ñi itam léeg-léeg dañuy fàtte yar ak yor yor mën naa doon ci distance waaye yar moom taqoo la laaj yar taqoo la laaj moo tax mboolem njaboot gi nga xamante ni nii ñoo nekkoon ci kepparuk Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yaral leen boppam bañ fa jógee ba wóotu seeni baay seeni i baay da leen a mag waaye seeni i baay gënu leen loolu kenn ku nekk mën nga koo seere ndax seenu njàmbaar seenu dogu ak seen jom loolu dafa feeñ ci seeni jëmm lu tax mooy seen waajur yooyu dañ dañ leen a jur waaye ñoom lañ defoon ay nawle te as gor ab nawlem du defar mu yàq loolu moo tax ñu am resultat bi ñu am sëñ Bay faloo daa wax lu am solo fekk mag ñi dañoo toog di waxtaan ci njàmbaaruk Cheikh Ibrahima fal moom la mu duggee ca wax ja dañuy leen course boo fekkewut mënoo caa jël paie daan ni leen waaye course bii mbay faaloo fekkee moom bëggu ci deuxième daan ni Cheikh Ibra Fall boo ko fekkoon pënd yu bari waaye duma raw loolu danga nga ciy jàngee ni danoo war a am jom fexe ba génération bii ñu dund suñu empreinte marqué ci histoire histoire du fekk kenn di la bind yaa koy fekk bind ci sa bopp. mag ñi sanc ñu àdduna te buñ ne mag ñi rek suñu xel dem ci sëñ Tuubaa ak ñii mu àndaloon te ñoom ci mujj gi lañ ñëw waaye seenu njàmbaar moo leen may taxawaay yu rëy yi nga xamante ne ni moom lañ taxaw sëñ Modou ak sëñ Axma dañoo bokk jikko ndax dañoo bokk fuñ ko nàmpe te mooy woyof mën a muñ yaatu tabe lewet gore ak dégg ndigal loolu moo doon seeni jikkoo seenub liggéey itam weesuwut woon tatajaafa junubuhum anil madaaji wa mimma rasaqnahum yunfiquuna jaamu yàlla lépp lu leen suñ boroom jox ñu dellowaat ko ci jaami suñ borom yi mooy dañoo gëmoon ni suñ boroom am na bunt yu mën a jaarale wërsëgu doomu yu bari bunt yooyu yëpp nag daa daje ci seen i jëmm wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraja wa man yatawakkal ala allah fa huwa asbu ma anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlif istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaara buntu la wa amur ahlaka bi salaat buntu la moo tax li daje woon ci seeni loxo bari lool mooy bunt yooyu yëpp benn bu ci nekk jox nañ ko àqam sëriñ Axma mi nga xamante ne ni moom lañ tudde jataay bi ngir fàttaliku ko ngir ay taxawaayam ci ñaar fukki atam ak ñeent lañ ko yóbbu usnu ma ab mu war a saytu mag ñoo xamante ne nii sëñ Tuubaa noppi na ci ñoom ak ñoo xamante ni nii sëñ Muusaa lañ àndaloon loola ku ko xam-xam ni makarimul axlaaq dëgg moo leen mën a saytu te lu jiitu loolu sax gannaaw sañcub Taif rek gouverneur général ñëw na fa fekk sëñ sa génn te booba sëñ Axma mooy bëkk néegam sëñ Axma ko dalal tàngalal café muy dem mu takk fas yu gunge ko ba mu génn dëkk ba ginnaaw bu sëñ Modou demee Ndar gouverneur dëkk ko laaj ndax taxawaay yu rafet yi mu def en tant que ak at yi mu am te booba faaseegul ay 18 ba sëñ Modou di ko tooñ naa ko boo demoon Ndar da nga fa am waay gouverneur de ni mu la fonke loola taxawaay ba ak yar ba rek ko indi mu àndoon ak sëñ Modou mi dem gànnaar ñu bokk fa nekk gànnaar doon dëkk boo xamante ni nii dëkk bu man di ci jaamu yàlla la waaye dëkk bu yàgg ci tumuranke la nag lañ ci jubloon rek mooy yaral leen seeni bakkan ndax ma rekk regg regle daa jafe regg regle mag ñi li daje woon ci seeni loxo te duñ yëngutu néew na loxo bu muy bu muy daje te boroom kurkuriwul te ñoom mosuñu ko yëgal seen yaram fañ leen jaarale la moo tax sëñ ma foo fii ci Usmaab bokk na ci yi ko sëñ Cheikh waxoon ba mu fay dem dañu ko am na fa ñoo xamante ne ni seen yitte mooy xam li nga bëgg bañ taxaw ci waaye am nag ñoo xam ne seen te mooy xam li nga bëgg ñu gàllankoor ko waaye boo demee na nga yemale ñëpp bokk loolu yombut de yombut defar guñ leen defar moo tax ñu man loolu loolu moo tax seen taxawaay yi ñu doon ko taxaw ñu daan bàyyente xel ci kenn ku ne wut sëñ Tuubaa ci moom boo ñëwee ci kër sëñ Modou Rokhaya fekk sëñ Cheikh Fatma fekk fu sëñ Mbàkke Madina fekk fu sëñ Axma loolu ab taxawaay bu am solo la ndax dañuy képp ku la tudde doom bëggul saw tur raaf ci àdduna te saa yuñ la tuddee ña la xamoon dañ la fàttaliku boo leen wonee gannaaw it dañ la ñaanal kon ñu ngi ko doon bàyyi xel bu baax a baax fexe yoon itam ba doon échantillon boo xamante ni nii néew doole du leen tàggale ak nit waaye am-am mosu a boole ak kenn loolu jikko ju rafet la fuñ mos a dem te seenum nit ne fa lu mu yor lu mu néew néew danañ ko bokk ak su néewee ba jàpp ne buñ ca tegee dana jur ngaañ ñu jël làmb seen poos jox ko mu gànnalee leen bu ñuy dellu lu fa dikk ñu wàcc ko fa loolu jikko ju rafet la te mag ñi doon nañ dund loolu wàcc ci kër goo xamante ne ni borom daa néew doole waaye sëg nita te néew doole àndul ab yàq yàqul ab ànd nga làmb sa poos jox ko mu def ca ngan nga ba ngay demit la fa dikkal ci ginnaaw bi nga bàyyee ko ñaata nit ñoo wàcc ci barab ñu ni ko ah, kër diw ji fi nga jëm si nangam nangam waaye àbb nañ kër diw pour nga dal fa nga nangu ko loolu doy na kii trop moo tax sëñ Moussa daf daan wax ni képp ku taxaw ci mbooloo ni ñeen ñëpp laa yemale nee na juum nga ndax ku la yemale wut ak ñëpp boo ko yemale ak ñëpp mu gën laa gore te nee na ab sopp dañ ab soppe dañ koy wutal aw lay daal ne doomu aadama yëpp mënees na leen a sol ci mel ni mbedd waaye mbeddum teraanga lay doon du baatin du wilaay ju jeneen doole mbeddum teraanga rek ci nga mën a sol ñëpp jiital leen te nee na teraanga la ci jiitu mooy ak yëg ci nga mën a may ñëpp ba desal ci loolu la doon yar njaboot gi moo tax bi mu leen jàngalee téere yi ba pare mun leen kaay leen jàng man ñu ànd ak moom fu mu jëm jëme leen fa di ànd ak ñoom di dund li muy dund bañ agsi ci jataay yii ñu agsi muy wóotu seeni waajur te kenn ku ci nekk barab ba mu nekk boo fa demee da nga xam ni jàmbaar la mus naa koy laaj sëñ Sall ambassadeur ni ko suñ kër gi ni mu ni ni ni mu mel dafa mel ni sëñ Modou Moustapha nit ñi dañ koo xamul mun ma déedéet da ngeen di gone rek sëñ Modou jàmbaar da koo doon moo tax bu la jàmbar doonde doo feeñ loolu moo dal sëñ Modou taxawaay bu am solo rafet la taxaw doon sagub sëñ Touba doon nit ko am personnalité mooy jaamu yàlla bu nangu ak njaam di ab jullit bu rafetal ak njullitam di taalibeeb sëñ Touba bu ko gëm te doyloo ko muy lu sëñ Touba génn loolu amatu ci soxla loolu ñëpp xam nañ ko ci moom ba pare fees la nag ak cëru suñu borom waaye doxewu ko waxewu ko ngir fañ ko yare la am xel rek la doon jëfandikoo waaye ku suñu borom nangul la nag suñu borom nangul la te ñu bari bàyyiwuñ ko xel ci moom loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax jaxasoo nag njabootu suñ Tuubaa gépp nag lu caagee ni barab bee mu yaroo rek wala ñee mu àndal yaroo déedéet njabootu suñ Tuubaa gépp la bàyyi woon xel li ko suñu borom wërsëgaloon itam ci jaami yàlla yi la ko delloo ba mu jeex tàkk taalibe yi doon ànd ak moom it kenn ku ci nekk wàccuwaay ba nga am ci moom jox na la ko ngir Sëñ Tuubaa waaye loola foofu foofee ñu jóge fa lañ ko nampé sëñ Moussa bi soxna waccit loo nelawee ñu di ko waajal sëñ Mbàkke Buso daa ñëw ca ca taxawaay ba sëñ Daam Abdourahman loo ñëw biñ jullee ba denc ba pare sëñ Moussa da leen jox otoom ni na leen yóbbu moom mu dox tànkam ñibbi Daarul Xuddos te boobu mooy xalifab Sëñ Tuubaa waaye safoor bi bi mu demee ci sëñ daam Abdourahmane ni ko sëñ Muudu nee na naa la yóbbu yóbbu sëñ bàkke sëñ daam dañu ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a jege Sëñ Tuubaa ci ak bokk la yoo mu ñëw ci sëñ Mbàkke sëñ Muudu nee na naa la yóbbu yàgg sëñ daam sëñ Mbàkke ko demal yóbbu sëñ daam ndax moo ma jiitu ci sëñ bi moo jëkk a jébbalu mag ñi foofu lañ newoon noonu Sëñ Tuubaa moom zéro faute la buñ ko dee xool rek kenn du gis sëkk ci sa morom te sëriñ bi rek la noo la xool ndax ñun ñëpp njabootu sëriñ bi lañ te dama wax ni nit bu fekkee da nga koy bës teqi baaraamu sànq lañ ba ndax tuutaay ba di ko màtt màtt màtt ba lay gën a yëg ci li nga koy defal kon sëriñ bi waruñu koo xeebal dara waruñu koo cofal lennam wan nañu aw yoon woo xamante ne ni moom lañu war a dunde te Sëñ Tuubaa boo doon wër gor ñi doo ci gis ku mel ne moom defar doomam defar doomi jàmbur ci sëñ bi rek nga koy gis taxawaay yooyu yii moo nekkoon ci jëmm ji ñuy waxtaane moo nekkoon ci borom penc mi ñu wooteel bis bi niroo guñ niroo jikko moo tax koo ci doon waxtaane man ngaa far aw turam bay sëñ Axma Tindodi mii rek am na pël boo xam ne daa màng si Tindodi dal ca ginnaaw dëkk ba soxnaam wasin mu ne naa dem yëglu ci borom dëkk bi xamal ni ko dama fee ñëw ba pare waxaale ko tudd ma maam bañ xëyee sëñ Axma yeewi am xar ci géttam dem ca pël ba tuddali ko doomam te pël moom ku ne xam na ne lu mu rafle am xar bokku ci ak mbaax foofu la mën a mooy seetuñu lu leen nit war a defal waaye ñoom toujours ñu ngi bàyyi xel li leen war ci doomu aadama yi loolu dal ci gàttal dëggoon naa ko cee bàyyi ci jataay bi nu bàyyi ko xel bu baax a baax ci war war yi nu war suñ diggante ak suñu bokk ci war war yi ñu war suñ diggante ak taalibe yi Sëñ Tuubaa yi suñ ciy taje rek mooy dafa am benn bi soxna suñu wax soxna Faati Sàmba ñëw ci Sëñ ni ko sama néeg ba day senn su ma nee ci biir bu bi fenkee ku romb ca wet ga ma gis ko sëñ bi wuyuwu ko mu del siwaat baneen yoon waxaat sëñ bi sëñ bi wuyu ko yoon bi ci des nag sëñ Moussa daa siyaare ba dem soxna si door a ñëw bi mu bi ñëwee wax ko sëñ bi dañu nañ ma dabal Mouhamadou Moustapha ñu dab sëñ Moussa mu ñëw taxaw soxna Fatou Samba ñëw taxaw sëñ bi ni ko waxal li nga waxaatoon mu jaar fa mu jaaraatoon sëñ Tuubaa ni siggéen ni ko Mouhamadou Moustapha loolu jombante nag nga ne fi ni ko Modou Moustapha wàccoo leen ak seen bokk yi wàccoo na ma ak yéen ni ko Modou Moustapha am na ñoo xamante ne nii kër guñ gane àdduna tumuranke war na faa jeex te defal naa leen loo xamante dex goo xamante ni bu ngeen xëyoon di ngacc di tuur ba takkusaan jot du ngeen daj kimi gëm loolu nag buñ ko bàyyi woon xel rek fa tabarakallah léegi suñ boroom andi xéwal yaatoo yaatoo te askan woo dem nag suñ borom am na ca kum ca manegan koo xam ne la yor bu ko nangoo bokk ki bokkam tumuranke dana fa jógoo waaye seetaan mi bari na eh, dëndiir lu bi itam bari na fa tabarakallah noo ngi jéggalu bu baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullah